waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay alhamdulilah. Dakar Buzz ñoo ñëwoon tey ànd ak euh, euh, file nga xamante ni fii la ñu jëlee terre bi euh, ci ci ci gaar bi yow dugg nga ci kii bi. non duggaguma ci nag moom ci laa ñëwoon nii pour dugg ci mais après ma ñëwee laa doog a xam information yi que ne 15 jours yi ñu déggoon gratuit demeewul noonu quoi. da ñëw joxe sa xaw ma sa numéro téléphone sa tour après ñu enregistré la nee après ne envoyé message les quinze jours yooyu noonu yow benn benn kii nga ci am quoi benn benn aller retour. benn aller retour waaw comprendre ñu ko noonu quoi. sànq maa ngi la dégg nga ne da nga am déception lan mooy déception bi. waaw nu ñu ko foogee woon parce que dañu dégg dem ci euh, ministère bi mu ne euh, pendant 15 jours dañ koy def gratuite pour sénégalais yi man di dem di ñëw quoi. Euh, tey jii nag laa doog a xam lu leer quoi de wax information bi jàllul na mu war a jàllee. ni ñu ko waxee quoi ak ni ñu ko foogeen bokkul quoi. kon daal 15 jours yi benn yoon rek nga ci am droit dem ñëw. 15 jours yi benn yoon nga benn sénégalais bu nekk benn yoon nga ci am benn aller retour te yow saako yi ma gis fii ak matt yëpp yaa ko moom pour préparer. <laughs> waa gis nga daa waroon tux daa waroon tux si. waaw moom Issa yi moom jàpp ne. yow da ngay da ngaa amoon néeg Dakar train bi nga doon xaar terre bi nga doon xaar bu ko defee bu paree nga mën a roñ sa mat laay sa lépp dugal ko. très bien effectivement noonu la <laughs> bi ñu ngi lay ñooy lay fay soxna si. nga ne yow lébu nga. na ma léegi. Ah, kële ab lébu la. nee na lébu. ah moom ab lébu la moom moom. nee yi daw yi ñu leen defal nii xamu xamuñu leen ko ñu dindi ko ah moom ngaaka la moom mais man xam naa loolu de moom xam naa loolu moom. d'accord parce que. Euh, da nga ñëwoon tey pour bëgg dugg ci terre bi ñibbi fan. Tëngéej waaw. léegi lan lañ la wax. bon pour démarrer ce matin dem naa gaaru Tëngéej fekk fa hôtesse de terre yi xaw ma hôtesse lu ñu doon dama bëgg a voyager dama bëgg dem liggéey ñene ma il va falloir nga joxe sa tour joxe sa numéro ñu envoyé la benn affaire boo xam ne da ngay tapé si lien bi. chaque minute sama liggéey tey dafa yaaxu chaque minute ma tàppe duma gis dara chaque minute ma tàppe gisuma dara léegi ma wàccaat remonté pale ba fii dama ko remonté ñëw ba fii waajal nee na daf ma inscrit nii léegi ma ne ndax dinaa mën a voyager tout de suite mu ne ma ma Morone Stour rek laay mën a voyager mooy suba suba incha allah. suba waaw. mais nee na dañ leen message ba nga jot message. Ah, loolu la ma wax de naa nag yow hôtesse de nga comme ñi ma hôtesse de terre yi woon ci suba. bu voya bu message bi ñëwul fee suba ma bëgg a xëy mënumaa xëy hôtel de terre yi may fekk fële dinaa wax li a wax ba pare soog a dem ah soxna si ARR rek tamit nag aw. ah parce que tamit wàcce war a ñibbi ña wax li wax ba. remonté ba fii. que day waroon a teel a wax ne gratuite bi il va falloir nga joxe sa tur joxe sa nom ñu inscrire la mais waxuñu loolu bàyyi ba affaire yi ne këtt ne jot na tey jii nit ñi yeew ne teer bi la laal di préparer sañee sinap nga ñëw ñu naan la fii la xari jaar ak fële la bëy jaar. ah dégg naa ñaa buñ la yow buñ la bindee ba pare ñaata yoon ngay voyage dem. Ah, ne parce que man j'avais prévu prévoir woon naa lépp dama ko prévoir woon Tëngéej Dakar dix minutes vingt minutes fois cinq prévoir woon naa ko ba pare que ni dinaa def cinq aller retour ñëw régler samay business delluwaat loolu moom prévoir woon naa ko moom waaw ma ñëw ba fii. waajee ngi nële moom daka kase sax oto si sa terre bi ba pare sol mbaxane kii tamit rouge rouge bordeaux bi léegi moom nee na. benn yoon da nga nee benn yoon rek nga am benn aller retour rek nga am ah, man man man nag man na ma waaru man xaw ma lii lan la nag benn instant. d'accord ñu ngi ah, je croyais que ni dinaa fa voyager cinq fois calculer temps bi sax que ne Tëngéej Dakar. di kon tey naroon woon toog. tey jëloon décision toog Dakar. business samay business fët fët laa bëggoon. waaw mais merci beaucoup Dakar Buzz am leen jàmm rek yéen. sëñ bi ñu ngi leen nuyu. ma ngi maa ngi leen di fay. nga ne affaire yi mais non mais da ngay voyager gratuitement ñu ñëw ne la il faut nga def réservation bu fekkee ne yow da ngaa wàcc sonn bëgg ñibbi nooy def nga def réservation boo pare kañ laa la woo ah loolu day métti. yow fan ngay ñibbi. waaw ànd laa jëm. depuis kañ nga wàccoon. 16h euh, euh, maa ngi fi boobu léegi. boobu léegi ñu waxuñu la dara lu leer. non waxuma dara ne ma ne daal dinañ l contacter sa téléphone. waaw mais wax nañ la tam aussi ci 15 jours yi ñaata yoon ngay voyagé. Ah, non non non waxuñu ma loolu expliqué ñu loolu yëpp expliqué wuñ ko expliqué wuñ ko ok. lan ngay wax askan ñëw ñu mën ci bàyyi xel. ah lu ñu mën a wax ci askan yi daal lii c'est une très bonne initiative a ah. mais nag aussi ñu jéem a yombalal nit ñi comme ça bu ñëwee ñu bañ taxaw est-ce nit ñi comme ça bu ñëwee rek ñu def lu ñu war a def dem mais su fekkee ne da nga ñëw aussi taxaw di nee la da nga inscrire ba pare nga doog bon amul sens daal. nga jot ci message. waaw doog a ñëw kooku du am sens. voilà. Ah, je pense que le train pour le Sénégal, c'est un bon voie quand même. Parce que vu que moi j'ai vécu à l'étranger, j'ai vu ces arts des choses, tu vois. Ça aussi, c'est un bon voie pour l'Afrique de l'Ouest. Je pense que surtout pour nous, l'Afrique francophone. Ah, donc moi, je suis fier de, de voir ça dans, ce, dans cette sous-région de West Africa là, tu vois, non Par exemple, moi, j'ai vécu dans des pays où j'ai vu ça, là, ça arrange les gens, c'est une bonne chose pour le pays quand même, quoi, Le Sénégal devient une référence pour l'Afrique de l'Est, Bravo quand même aux gens qui l'ont fait et merci pour le travail fait, quoi. j'étais venu pour aujourd'hui, mais ça n'a pas... Ils m'ont dit, ils vont m'envoyer message sur mon téléphone pour voir comment ça va se passer, quoi. merci waaw merci jaajëf. waaw ma jaajëf jaajëf bi Sénégal. bi ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay naa la soxna si. dégg naa tey 6 heures du matin nga fi ñëw. waaw ñëw naa fi ay 6 heures ñoo dee laaj ay renseignements parce dañu waxoon euh, gratuite la mais ba li ma wax li ma wax ak li am ça fait deux il da nga ñëw ñu kii la nu ñu ko waxaat sax programme programme la mais loolu programmation bi amul sens man lu ma bëggoon bu dee loolu wax nañu xam ne mënuñu mënuñu may euh, affaire bi gratuite nañu bàyyi ñi di fay moo gënoon lu ñuy def nii da ngay ñëw ñu programme la pour après boo demee ñoom ñu wala téléphone yow nit ki day liggéey amoo jot di ñëw fi ngay ñëw fi di pour programmation ah, man affaire dafa ma jaaxal trop instant gars yi dañuy ñëw fii kenn demul train bi yëbul kenn dañuy simuler nii rek depuis sànq léegi di ñëw taxaw départ dem day simuler ah président lu mu amul ah waaw mais yow euh, ci suba ñëwoon nga lu tax nga ñëwaat si ngoon non dama foog ne ñu damaa gis gars di du di génn mais envoyé guñ la message waaw xaaral ma dellusiwaat waaw amaguñu bindu woon nga bindu woon naa waaw doo toog rek bañ leen ne la message. non man kay dama ñëwaat laajaat su fekkee loolu mënul nekk ba dem ñibbi ji. fooy ñibbi. ah yëmbal. ok. Ah, waaw nee na. ah loolu jaaxal na ma de man j'avais pensé que ni ñoom dañoo waxoon dañ koy maye pour pendant 15 jours kon kay ay envoyé message amu ci sens. sérieusement parler. yow yaa ngi doog a ñëw waaw non man maa ngi doog a ñëw. suba ñëw. non non non parce que wóoruwuma ko woon wóoluwuma ko te comme damay xëy comprendre nga bëgguma tardé. lu tax wóolu non parce que xam nga rek ay ay ay wax wax yu comme mu ngi nii par exemple mu ngi nii rek da ngay ñëw léegi ñu naan da xam ay ay ay joxe sa numéro ñu envoyé la message kaay yéeg ma dama xaaruma loolu ma damay ñibbi waa liggéey damay wàcc intendance gi lañ nekk service militaire lañ nekk intendance gi lañ nekk comme daanaka maa liggéey wàcc damay ñibbi voilà comprendre nga ma ni su fekkee demul kay demul ma dem ñibbi rek mooy baar waaw. mais defal nañ leen fee ay escalier yu rafet da ngay taxaw rek muy dem. waaw li moom c'est beau quoi rafet na trop moom mais yëgagoo foofu. non yëgaguma foofu mais yii moom du ma fa dem parce que man damaa découragé instant ni quoi. non mais mais est-ce que wax nañ la ñaata yoon nga war a voyager ci 15 jours yi. non benn benn benn yoon lañ lay yóbbu rek benn yoon leen la yóbbu waaw. mais da nga bëggoon mos benn dama ko non dama ko bëggoon ñam rek benn yoon rek mais xoolal instant yii mooy yàq nañ lépp yàq nañ lépp waaw. yàq nañ mos mer naa mer naa président nag parce que li moom bu ko mënoon waru ko wax sax bu doon ay maye da ngay maye deux jours après ñu di fay seen xaalis mais di maye quinze jours xam ne mënoo ko un mois presque loolu doy na waar ah. merci mi ngi noonu jibi kii nag mu ngi yor ñeenti téeméer ci loxoom kii dafa mel ni dafa ñëwoon pour pour pour jënd tikem sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi di leen fay euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu waaw man euh, sama tur Ibrahima Sata Kande dëkk jam ñaajo mais li ma li ma déggee ci li ma gis tamit ci tele démb de loolu loolu na ci man parce que Sénégal Sénégal fu mu toll nii instant nii amul morom waaw parce que amul jigéen amul góor lépp liggéey rek. li gis teer bi rek sa xol seet. ren bi loolu laa tax ma daw dama bàyyi oto yi. pour ma jënd ticket ma jënd ticket saa fekkee ticket bi ay 5000 la mun naa jënd parce parce que xam nga rek kontaan bi rek kontaan bi rek ok jërëjëf yàlla yàlla na fay leen. léegi nga ñëwee fi lan lañ la wax. waaw ñoom nee na ma léegi damaa ñëwoon pour inscription suma comme. jàkkaarloo kii. waaw comme euh, ñoom euh, nee naam léegi mënu nekku tey euh, sama jote sama message léegi ma mun a delluwaat waaw ma kontaan rek. ci terre bi kontaan ci terrain bi kontaan rek <laughs> waaw kontaan rek merci ay jërëjëf waay merci merci merci.